tey jii nag dañu ñëwoon tey président Abdoulaye Wade yabal ñu ak euh, Karim Wade ngir ñu ñëw massawul ko ñi nga xamante ne dañu loru ci mbënd mi ak commune yi nga xamante ne nii ñi ko jiite dañu bokk ci biir parti démocratique sénégalais ak ñi nga xam ne même bokkun ca waaye ñu loru ci li nga xamante ne mooy ci banlieue bu dakaar bi tey bi ñu xëyee nag def nañu tournée. dem nañu ci commune yu bari ba tey jii ñoo ngi fii tey ci Cheikh Dieng ca jeexalaguñ message bi nag moo doonoon président Abdoulaye Wade yónni ñu ngir massawu askan wi ci mbënd mu metti mi nga xamante ne jamono ji askan bi ñu ngi koy dund. ñu gis ne loolu moom président Abdoulaye Wade liggéeyoon na ci liggéey bu am solo boo xamoon boo xamoon boo xam ne ni tey su fekkonte ne tey état bi bi nu ñëwee dañoo wéyal liggéeyam. kon tey jàpp nañ ne tey jafe-jafe yi am tey ci mbënd mi tey du am waaye bin ñëwee ñoom dañoo indi seen baneen yoon jaar ca ak seen yoonu liggéeyin woo xamante ne am na différence ak nun ñu doon doxee ba tax tey mu indi tey jafe-jafe yi ñu gis ne yi tamit toll nañ foo xam ne tey am na lu mu laaj ndax ay jamono bi mu faloo mbënn mu ndaw moo amoon mu supprimer Sénat tey ji mbënd mii am tey moo gën a metti jaadu woon na tey mu supprimer lu mel ni au conseil bi ak conseil économique social ak euh, direction yi nga xamante ne amuñu njariñ même ministères yi sax suñu ko mënee wàññi ñu wàññi ko ndax gis nañu ne tey askan bi sonnoon na ci soxla nañu lool. li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy tey li ñuy wax euh, chef de l'opposition xaalis boobu nga xam ne tey dañ ko war a jël war koo jël di ko ko jox. suñu gis-gis tey mooy ñu jëloon ko tey def ko ci mbënd mi parce que loolu tey moo gën a farata ndax gis nañu ne ay milliards la ca milliards yooyu au lieu ñu di ko jël di ko jox nun ñu nekk ci opposition bi bu ñu sañoon li nu gënal mooy ñu jox ko dugal ko ci mbënd mi pour askan bi. ndax ku xam président Abdoulaye Wade xam ne jëmm la joo xamante ne saa soo xamante ne lu mel nii mas na am taxawaay ba mu cay taxaw askan bi yëpp danañ ko gis ndax dana jóg. ñëw ànd kook ñoom lii ñuy dund mu bokk ko dund ko ak ñoom loolu gis nañu ne tey manqué na tey taxawaay boobu ndax tey jii boo xoolee tey communes yi dem yëpp boo demee sa yaram day daw ndax la nga fay gis vraiment sa yaram day daw ci koo xam ne bi mu toogee wax na ne génne na lu toll ci juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar kooku jàpp naa ne loolu su fekkoonte ne defoon nañ ko ci mbënd mi tey ji askan bi duñ dund tey jafe-jafe yi kon daal kaddu yi loolu rek laa ciy tënk li ci des ma bàyyi Cheikh xam naa bu fekkee am na lu manqué moom mu complété. honorable député askan wi nga xam ne nekk ci diwaan bi wax nañu gis nga neneen li nga xam ne mooy pompage système de pompage bi d'accord ñu ci ànd duñ ci ndax ñu say tembe ñu ngi tëmb amuñ sax fuñ fanaan est pare ngeen en tant que parti PDS waaye te boobu ban tontu ngeen ci loolu ngi nga foofu li ma ciy tontu rek leer na. ndax boo xoolee mbënn mi bi mu amee Karim bi mu fi indi bi mu ñëwee po euh, pompe yi mu fi indi woon ñëpp gisoon nañu dayuwaay wa ak li nga xamante ne moom la daan pompe par jour jàpp naa ne loola tey jii boo xoolee tey ñoom pompe yu ndaw lañ fi indi yoo xamante ne wax dëgg yàlla ay pompe la yoo xamante ne mënuñu dara ndax tey jii boo demee tey Kër Massar la fay la fa am jàpp naa ne ñooña état bi tey waroon na mën a génne tey armee bi ñu ñëw jàppale si sapeur pompier ndax sapeur pompier dañ faa néew doole ca pour loolu ñu man koo dégager nu mu gën a gaawee ndax gis nañu ne tey dem na ba ma ngay werte commencé ndox mi di soppeeku doon lu métti ci askan ba fay dund ba tax na daal ñoom ñi ngi ci ay jafe-jafe yu métti yoo xam ne wax dëgg yàlla état jàppalewu wu leen ca seetaan na leen. plan Orsec bi nga xam ne nag lancé nañ ko ba léegi mu teg a témbe demagul ñaari fan ba léegi yoo fan boo xam ne ba léegi askan wi gisaguñ ñëw. waaw loolu lépp xam nga ñàkk bu état ñàkk def liggéeyam moo tax nun daal dañu yónni woon ngir ñu ñëw xool ñëw na nañu xool nañ gis nañ li nu gis nag danañu dem jëbbal ko suñu kilifa suñu kilifa muy président Abdou Karim Wade et notre secrétaire général président Abdoulaye Wade su ko defee bu boobaa ñoom dernier moo bi ci ñoom lay jógee. asalaamaaleykum voilà. plan ORSEC bi amoo leen ci xel mu tey. non euh, euh, tey la ñetti fan ba ñeent boo xoolee ba mu ko waxee léegi lu ngeen gisagun. Hmm? ana fu ngeen demagun gis fa dara. Ah? ci plan Orsec boobu lañ nekkoon sax si la ñuy desandi ndax euh, waxoon ngeen ni di ngeen convoqué session parlementaire euh, extraordinaire ngir ñu daal di teg ay commission d'enquête ngir mën a wax fan la koppar yooyu jaar ndax yéen a ngi ci ba tey. Euh, incha allah loola ñu ngi ci ca fii suba bu soobee yàlla danañ leen wax fi ñu ci toll incha allah.